أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhim salaatu wassalaam mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala tey ñu ngi jël qissatu ixyaai tayr ci dund yonent yàlla ibrahim am na ci benn porox ndoll benn histoire bu ibrahima doon laaj boroomam bu boroomam yokkal ko yaqiin yokkal ko imaan te mooy aaya boobu yàlla tabaraka wa taala dinu nettali ci suratul baqara aaya 26 keroog ba ibrahima jàkkaarloog borom bi ne ko dama bëgg nga wan ma nooy dekkile ku dee li ko waral mooy ibrahim alayhi salaam gis na namruud ginnaaw ba mu amee benn discussion benn xiwaar mook namruud ci kuy dundal kuy rey ba ni ko ibrahima convaincre xamal ko ne yow doo dundal doo rey foofu nag la imaanu ibrahima yéegee ginnaaw ba mu tollee ci xam-xam elmal yaqin mu bëgg a dem ci aynul yaqin ngeen xam-xam ñett la dafa am elmul yaqin aynul yaqin xaqul yaqin elmal yaqin mooy lan courant day maase ñun ñëpp xam noonu lool n'est-ce pas aynul yaqin mooy nga gis ku maas xaqul yaqin mooy bu la maasee yow ñetti du benn elmal yaqin mooy courant day maase ñun ñëpp ñu toog fi xam nañ ko d'accord aynul yaqin mooy nga gis ak sa bët ku mu maas bu leer na ñetteel bi mooy mu maas la ban nga gën a am kóolute bi mu la laajee nag keroog bi mu la laalee keroog nga am xaqul yaqin Ibrahima nag dafa bëgg génn ci elmal yaqin xam na ne nit day dee dafa bëgg borom bi won ko naka lay dekkile ku dee borom bi nettali ñu ko ci suratul baqara aya 26 borom bi tabaraka wa taala mu ne baada auzu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
سورة البقرة آية 26 بقرة بقرة لا دو بقرة بقرة لا دي آية 26 آية 26 واه آية 206 260 ay 260 baqara la ay 260 ah baqara la mais aaya bi mooy 260 borom bi tabaraka wa taala mu ne wa iz qaala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhi lmawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من التير فصرحن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم برم بمنى وإز فاتلكل قال بمبخي إبراهيم baayu yonent yi abul anbiya abun rahim baay ju bëri yërmande loolu mooy ibrahim mooy baayu yonent yi bam ne rabbi yow sama boroom arini nang ma won kayfa tuhil mawta naka ngay dekkile lu dee ku dee allahu akbar ku dee yow yàlla noo koy dekkile qaala yàlla ne ko yow ibrahim awalam tuumin xanaa gëmoo xanaa gëmoo ma xanaa gëmoo sa borom ba ngay laaj naka la sa borom di dekkilee xanaa gëmoo qaala mu ne bala aha kay gëm naa de walakin waaye li yatma inna qalbi ngir sama xel mën a dal sama xol mën a dal ngir ma yokk imaan ma am degré bu leer bu wér ne ah sama borom mën na ko loolu rek laa ci bëgg yàlla ne ko ibrahim qaala yàlla ne ko fa xus jëlal arbaatam min attayri na nga jàpp ñeenti picc fa surhun na nga rey leen boroom xam-xam yi jëlee nañ ci ibnu abbas ñu ne ñeenti picc yooyu pittax la xamaama diig xuraab taawus picc pittax séq baaxoñ jàmbu jóob mais xam turu picc yi loolu nekkul lu yitteel parce que yonte yàlla muhammad àdduwu ci yàlla leeralul picc yi yan façon la l'essentiel que lu am dunqu la am bég am ay tànk ban la ci ñoom nag kenn xamu ko boroom xam-xam yi nag léeg-léeg ñu jéem a wax ne nangam la nangam la nangam la comme ni ñu waxee fii ne pittax la ak séq ak baaxoñ ak jàmbu jóg xam nga ne yooyu yépp am bég yépp am dunq yépp am ñaari tànk yàlla ne ko jëlal ñeenti yooyu nga rey leen boo leen reyee nga daggate leen boo leen daggatee nga jaxase ko boo ko jaxasee ba kenn xamatul benn bu nekk foo bokk nga saam ko ñeenti saam nga téye bopp yi foo koy saam mu ne ko ci ñeenti montagne fa surhunna ilayk summa ijaal ala kulli jabalin minhunna juz'a na nga wut ñeenti montagne montagne bu ne nga def fa benn saam ñaata la woon ñeent kon ñeenti montagne nga saam ko ñeenti xaaj nga téye bopp yi summa duuhunna après nga woo leen nag nga taxaw fee nga ni éppi tax ñëwal allahu akbar ginaar ñëwal baaxoñ ñëwal jàmbu jóob ñëwal nga seet ibrahima dem ut ñeenti loolu ñu ko waxoon ñeenti picc yooyu suñ ne picc mooy luy naaw lu am laaf am dunq moom la yàlla wax fi ci quraan ne fa xuz arbaatam min at-tayr jëlal ñeenti picc kon ñeenti picc la ibrahima jël ban la kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam am na ñeenti picc rey na leen jaxase na leen saam leen ci ñeenti montagne mu taxaw fële summa uduuhunna nga leen di woo par benn yàlla mu ne ko yatiinaka saaya boo woo rek dinañ gis montagne bu nekk soo woowee pitax yàpp pitax bi dina déclenché wu ci montagne bu ci nekk ñëw ci yow daal di kole wu ci bopp bi nga yor bi boroom xam-xam yi nee na yenn saay sax am ci boo xam ne su ne pitax pitax bi ñëw mu bëgg a génne bopp séq bi pitax bi day lànk bopp pitax bi day lànk bañ a kolewu bopp séq bi day lànk bañ a kolewu ci pitax bi ndax du moom bu mu woo rek yaram bi day day daw dajaloo ba mu des bopp bi rek mu daal di ñëw kolewu ci bopp bi ci loxo Ibrahim mu daal di sab dem yoonam bu dee ginaar gi mu ne kukuruku daal dem yoonam gis ngeen yàlla tabaraka wa taala kattanam mu ne summa doohun na nga woo leen yaatinaka dinañ dikk ci yow sa ayan di dox boo woo rek dina ñëw ci yow su boobaa yow ibrahim na la leer nga xam nga yëg waalam anna allaha azizun hakim su boobaa na nga yëg ne yàlla waalam nga yëg nga xam anna allaha naka yàlla azizun ku xereñ la ku not ci nguuram la hakimun ku xereñ la ibrahima def na loolu yàlla tabaraka wa taala wax ko mu rendi leen saam leen ginnaaw ba mu ko daggatee jaxase ko mu teg bépp benn bu nekk ci montagne mu daal di woote benn bu nekk mu daal di ñëw daal di kole comme ni ko yàlla tabaraka wa taala waxee yàlla ne ko na nga yëg ne man yàlla tabaraka wa taala aziz ku not ci sama nguur laa laa yaxlubuhu shay dara mënul dugg ci nguuru yàlla gi te neexu lu ci am rek da koo neex lu ci xew def ko neex wala yamtani min shay lu yàlla bëgg day am kenn mënu ci dara wa ma shaa kaana bila mumaani lu yàlla su bëgg a def kenn mënu ko tere li annahu alqahir li kulli shay ndax yàlla moo noot lépp xakimun fi aqwalihi ku xerañ la ci ay waxam wa afaalihi ak ay jëfam wa sharcihi ak sharam wa qudratihi ak kàttanam hukum lu mu bëgg a def mu def bi ñu commencé jàng dars ibrahim ba fii nu yem ci tomb bi muy qissatu tayr ihyaai tayr nettali ni ibrahima dundalewaat picc ya ndax bëgg am ngëm ci yàlla tabaraka wa taala ngëm gu dëgër liñ ciy jële mooy ay tomb la juróom-ñeenti tomb bi ci njëkk mooy qad yanshau l insan fi biatin fasida wa ma zalika fa innahu ida uctisima bi rabbihi jalla wa ala fa innahu yusbihu rajulan salihan faqad raayna kayfa anna khalilu rrahman ibrahim alayhi salam nasaa fi biatin ahluha yabuduna al asnam wa ma zalika asbaha huwa khalilu rrahman jalla wa ala li ñuy njëkk a jële ci dars bi mooy nit mën na dund ci société bu bon waaye terewul loolu yëpp li société bi di yàqu di bon waa ji moom day am ngëm ci yàlla tabaraka wa taala day jàpp ci buumu yàlla loolu mun na nekk nga nekk fu bon te doo bon kañ mooy boo jàppee ci yàlla ndax ku jàpp ci yàlla yàlla jubal la ndax gis nañ ibrahima alayhi salaam mu judd fekk lu bon màgg ci biir lu bon waaye dund ko tan la juddoo ci société buy bokkaale di jaamu ay përëm baayam sax ci ñi ko jiite la bokk mu ànd ak ñoom dund ak ñoom waaye dundul lañ doon dund kon loolu mun naa nekk nga nekk fu bon te doo def lu bon li nga dund ak ñu bon mais doo ànd ak ñoom ci seen lu bon loolu gis nañ ko ci dund yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ñaareel bi أن المسلم إذا رأى الفساد منتشرا في مجتمعه فلا بد أن ينكر عليهم ولكن بكل رحمة حتى إذا نزل العذاب على هؤلاء المفسدين يكون هو من الناجحين المفلحين ñaareel bi mooy ab jullit su gisee yàqute mu tasaaroo ci société bi muy dund il faut mu mu mu taxaw nag wax ci ma ni ab jullit buy dund ci kër cib koñ cib quartier cib dëkk ci famille mu gis ñuy def lu bon foog mu wax ci tey rek ngeen gis ay nit yi ñuy tuddee ay borom xam-xam borom xam-xamu lislaam di gis nit ñi di def lu bon ñu noppi tey rek la am ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi lan moo doon mission yonent yi mooy dindi fi lu bon samp lu baax yonent yi nekk ñu fi kon ñan ñoo leen doon borom xam-xam yi lu tax borom xam-xam yi duñ ko def parce que dañ leen a neexal ñi jox leen ay terrain ci wetu géej gi ñu jox leen ay 4-4 ñi ñu jox leen ay millions ñi ñu jox leen ay passeport diplomate soo waxee ñu nangu ko dootoo tukki moo tax borom ka xam-xam yëpp daal di noppi te yonent yàlla muhammad nee na saakitu anil xaq seytaanun agras ku gis dëgg noppi seytaane bu muuma nga kon jullit su nekkee société bu yàqu dafa war a wax fala budda an yunkira alayhim dafa war a wax ak ñoom suñu lànkee ëllëg bu mbugal mi wàccee asamaan di ñëw ci kaw suuf moom yàlla dina ko ci musal essentiel ka na nga wax képp ku nekk ci kër kër ga ñu fay def lu bon nga noppi yaa ak ñoom a yem képp ku nekk ci kër kër ga lu bon am fa waxoo yaa ak ñoom yéen a yem ku gu say doom di def lu bon sa soxna nga noppi yaa ak ñoom yéen a yem kon il faut ñu wax ñaareel ñetteel mooy annahu la budda min al adabi ma al walidayni hatta walaw kana kafirayni billah jalla wa ala walakin la budda min al hirsi ala da'watihima wa hidayatihima faqad ra'ayna kayfa kana ibrahim alayhi salam yad'u abahu bi kulli adabin wa rahmatin wa hanan mbokk yi li kenn mun ta weddi mooy bu la yàlla joxe xam-xam foog nga woote say mbokk ñi ci juutu mooy sa ndey ak sa baay nga woo leen waxtaan ak ñoom donte ne ay yéeféer lañ waaye booy wax ak ñoom minal adabi ci teggin ndey ak baay ñooy ñi jiitu ñi nga war a woo ci diine waaye ci ban façon ci teggin ndax gis nañ ibrahima alayhi salaam bi ko yàlla tànnee def ko yonent kan la njëkk a woo baayam bokk na ci terme yi mu doon utiliser yaa abati e yow baay booy ñëw ñëwul na ko e père e pa e gis nga xam nga non yaa abati e baay booy ndeysaan loolu la ibrahima doon utiliser kon jullit suy woon ndeyam ak baayam da leen di woo ci teggin ibrahima alayhi salaam yàlla yónni na ko mu woo ndeyam ak baayam ci yar ci teggin ci yërmande ak ci lewet ci la leen doon woo la li ma taabudu seytaan yow baay lu tax ngay jaamu seytaane ah lu tax ngay bàyyi yàlla mi la bind ngay topp seytaan gis nga baat yu rafet yooyu yooyu la ibrahima doon waxee ak pappam waaye nag li waa réew mi di wax ne sa papa buy naan sàngara da ngay dem jëndal ko sàngara buy déedéet loolu moom du diine sa papa kay buy naan sàngara amoo droit jëndal ko ndax sàngara dafa araam ah islam da ne taawanu alal bir lu baax la ñuy dimbalante yenent ne innama taatu fil maaruf ci lu baax la ñuy topp nit waaye lu bon sa yaay day naan sàngara wala sa papa day naan sàngara kon amoo droit mu yónni la sàngara nga bañ a jëndi abadan doo jëndi ndax lu araam la waru ko naan loolu kay da nga war a fexe mu bàyyi ko ñeenteel bi mbokk yi anna kullu man da annaas wa kaana harisan ala hidayatihim fala budda an yuhaaribahu ahla zeyqi walfasad allahu akbar alladina yuriduna nashra alfasad fi lkawni kullihi wala yuriduna an yaraw unasan salihin wala muslihin walakin al aqibatu tayiba la budda an takuna li ahli l iman bu yeboo ngeen ngembu de bu yeboo ngeen takku ngeen yëg xam ne képp ku bëgg a wooteel yàlla képp ku bëgg nit ñi baax képp ku bëgg a jaar ci yoonu yàlla tabaraka wa taala foog nga xeex ak bandiyeeg kàccooreeg say-say yi foog nga xeex ak gaa yi nga xam ne ay kàccoor lañ dañoo bëgg a tas mbon ci kaw suuf foog ñu takku di xeex ak yow gis ngeen loolu moo nekk ci àdduna bi mooy bandi yi ñooy xeex ak ñu baax ñi loolu rek moo nekk ci àdduna loolu kañ la tàmbali bi yàlla bindee asamaan ak suuf ba léegi yàlla wàcce doomu aadama yi ñu bon ñeeg ñu baax ñi ñu ngi xeex ñi seen maam yi ñi doon xeex ak yonent yi seen sët yi tey ñooy xeex ak nit ñu baax ñi benn kese la amul amul amul différence ñoom abu jahlin ak ñoom firawna ak ñoom namruut seen sët yi ñoo fi toog tey di xeex ak nit ñu baax ñi képp ku takk pour jaar ci yoonu yàlla bu yeboo nga ngemb nga xam ne dinañ la xeex buñ la mënee rey nañ la rey buñ la mënee tëj ñu tëj la buñ la mënee exiler ñu exiler la lu ñu mën comme li ngeen déggee sax gaay naan dañ koo lakk sànni ko biir géej buñ la mënee rey lakk la sànni la biir géej sax danañ ko def parce que da nga leen di gêner kuy def lu bon kuy def lu baax daf koy gêner waaw moo tax rek du ñu da nga leen di déranger dañuy bëgg nga bàyyi dëkk bi yépp tas ñépp nekk ci lu bon wala fi nee nañ picc mu lakkum taat day bëgg moroom def kat lu bon chaque jour day xeex ak ku nekk ci dëgg moo tax mu ne allazina yuriduna nasra al fasad ñi nga xam ne dañoo bëgg a tasaare mbon fil kawni kullihi ci àddina bi yépp wala yuriduna an yaraw unasan saalin bëgguñoo gis ku baax bëgguñu ko teg bët jamais bëgguñu teg bët ku baax lii diine moo ñu ko wax mu ngi nii wala al muslihin bëgguñu gis ñiy defar da nga leen di xatal da nga leen di yàqal dañu bëgg nga bàyyi nga noppi wala nga ñëw mel ni moom ñoom loolu da nga gis ñun ñi ngi ñi ngeen di wax ne dañoo baax ñu noppi loo leen dootuñu wax dañ laa la yow bokkoo ci léegi sa yoon nekk ci noppi mën ngaa jàpp ci li nga noppi waaw ba góor jigéen ñi nekkee ci Sénégal di def seen mbon yooyu ñu wër kër xalifa diine yi am ci kër goo xam ne bi ñu demee sëriñ bi lim ñu wax mooy almasaalihu tamnauna bil kalaami fenuma de ci jàkka laa nekk am na ci benn kilifa diine laa wax xam nga lan la wax ñi ko seeti woon bi ko gars yi ne dañoo bëgg nga ngeen taxaw yéenay kilifa yi da da leen ne yéen wax leen rek wax leen ñun almasaalihu tamnauna bil kalaami ñun intérêt yi moo tax ñun mënuñu wax yéen wax leen mun naa wax turam sax mais la yaxtaaj gis ngeen moo tax Sénégal bu doon tàkk kenn du wax parce que ñëpp olof yi dañu ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ñëpp dañ leen a guuxal ku guux nag boo ngaa ngee li nga guux woon dafa am benn baaxoñ dafa for daggitu fromage ndeysaan yëkk ci kaw garab ga dem ci digg karaw ga daal di koy seex nag ndeysaan di ko bëgg a lekk bukki bi ñëw xool ko bëgg fromage bi xamul nu muy def mu ne ko baaxoñ yaa neex baat ay baaxoñ dégg naa dëkk bi yëpp picc yi yaa leen dàq baat bul ma iñaane sa baat bu neex bi ay waay woyal ma tuuti baaxoñ bi ne affaire ba wadd ngi ne ko jërëjëf jël dem yoonam mu nekk waaye kooku nag jël fromage ba lekk dem yoonam kooku lu mu bëggoon jël fromage bi rek nax ko gis nga ñii tamit noonu lañ leen naxee jàpp nañ ne benn 15 sur 10 ci tefesu géej mooy tax ñu noppi benn 4x4 bu ñuul benn 1 million benn un benn passeport benn benn benn bu la noppiloo bisa ngi ñëw di nga taxaw ci kanam borom bi doo noppi te kër gi yàgg-yàgg di nga ko fi bàyyi passeport bi di nga ko teg kër gi dinañ la ko génne oto bi dootoo ci yéeg ba yowmal qiyaamati loolu la ñu war a bàyyi xel poñetu adduna yi day jeex kër goo fi gis mu rafet dundal ñaar fukki at nga laaj ci ana boromam léegi ñu ne la dee na keneen ñëw jënd kër gi bulldozer lay indi raser ko tibb xeer yi sànni ci ko mbalit ñëw dóor ci beneen immeuble kooku dee keneen ñëw kooku dee keneen ñëw ñuy tojante rek ay kër ba yowmal qiyaam jot yàlla ñëw toj lépp nag kenn dootul tabaxaat jaagu leen ko kalla isa dukkatil ard dakkan dakka bis bu yàlla di mokkil suuf ay mokkit kan mooy tabaxaat kenn kon nañu yëg ne képp ku bëgg a déglu déglu digle lu baax bu yeboo nga takk bu yeboo nga ngémm bu yeboo nga xam ne doo nekk ci lu jàmm lu tax ndax am na ñoo xam ne bëgguñu loolu ñu ngi fii bëgguñu gis ku baax waaye na nga yëg yow mi nekk ci dëgg wal aqibatu tayiba la budda an takuna li ahli l iman yàlla nee na wal aqibatu li taqwa wala aqibatu lil muttaqin résultat bi yàgg yàgg yàgg yàgg ñan ñooy gañe ñi ragal yàlla rek ñooy nekk ñooy féete kaw mbokk yi ibrahim namrud songoon na ko fan la résultat bi mujje ibrahima féete kaw namrud daanu firawna songoon na Moussa te yéen xam ngeen ne firawna na mu yemoon ci doole mooy yéeféeri tey noonu lañ toll keroog ba firawna di xeex ak Moussa Moussa yat la yor firawna lan la yoroon ci arme lan la yoroon ci arme mooy ni li noonu yàlla yi am tey rek firaaw Moussa ndeysaan yor benn yet benn yet yet ak rakkam ñoom ñaar la sën waaye fu mbir mi mujj mooy wal aqibatu lil muttaqin bu yeboo rek ñu ragal yàlla foofu rek la ne mbir mi nekk suñu ragalee yàlla rek yàlla moo ne inna la nansuru rusuluna man dinaa dimbali sama yonent wala zina ak ñi gëm yàlla ànd ak yonent yi juróomeel mooy laa budda min tului nafs fi daawa ila allah il faut mbokk yi ñu wooteel yàlla tabaraka wa taala fa inna ibrahim lam yuksir asnaamahum illa baada an daahum sanawat tawila il faut ñu nit ñu mun a ñu mun a loolu al tubaab yi naan patience il faut ñu am patience min tului nafs fi daawa il faut woote bi nga am ci patience nga bañ a yàkkamti bañ a gaawut yow résultat nga soxla ibrahim xëyul rek jël jaasi ji song yàlla yi toj ko mais dafa woote woote woote woote woote ay at yu yàgg après mu doog a toj yàlla yi fa lamma yaisa minhum ba mu demee ba découragé mu xam ne ñii dootuñu ñëw araada faqat an yurifahum anna hazihi al asnam la tanfau wala tadur mu bëgg leen woon léegi nag ci yeneen méthode yeneen yoon ne xërëm yii ñu topp du jëriñ amul benn njëriñ bëgg leen jox ay leçon bëgg leen jox ay dars ci la dem def stratégie am dugg ci yàlla yi daaneel ko wékk yàlla ju ngand ji jaasi yi juróom benneel ci lu ñuy jëlee ci dars bi mooy anna man tawakkala ala allah fa inna allaha yaxfazuhu wa yansuruhu képp ku jàpp ci yàlla yàlla aar la dimbali la alquran moo ko wax wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la loolu yàlla moo ko wax kon képp koo xam ne da nga def tawakkulu ala allah mooy nga jàpp ci yàlla fa inna allaha yaxfazuhu yàlla sàmm la benn waay jàpp na benn borom xam-xam bu mag tëj ci kaso daal di koy booleeg benn gaynde pour gaynde gi lekk ko gaynde goo xam ne xiifloo nañ ko ay fan waaye lu leen yéem lu leen jaaxal mooy ba ñu ubbee barab bi pour xool ndax gaynde gi lekk na borom xam-xam bi ñu gis gaynde gi di ko mar waa ji toog gaynde gi di ko mar bi gaynde gi maree ba sonn ñu xam ne gaynde gi du ko lekk ñu daal di ubbi bunt yi ñu génne waa ji ñu wër ko nag ne ko yow tiitoo bi mu lay mar bi bi ñu ubbee gaynde gi mu ne man kay sama problème moo doon ndax yuuti gaynde set na ba ma mën a julli ndax yuut yi set na ndax yàqul sama njàpp ba ma mën a julli man loo ma doon sama problème allahu akbar wa man yatawakkal ala allah wa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wax ji mooy est ce que jàpp nañ ci yàlla loolu rek la mais yàlla ku jàpp ci moom mu doy la dina la sàmm te dina la dimbali wala qad raayna gis nañ kayfa anna ibrahim lamma tawakkala ala allah jaala allahu lahu annaar bardan wa salaaman gis nañu Ibrahima keroog ba mu jàppee ci yàlla Jibril ñëw ne ko ndax am nga ci man soxla ñëpp ñëw ne ko ndax am nga ci ñun soxla mu ne awma ci kenn soxla sama borom rek tey faalewuma kenn sama borom rek sama borom xam na li ma nekkee du ma seetaan wa man yatawakkal ala allahi yàlla yàlla def yàlla tawul de waxul géej gi demal nga fay ndox mi def safara si yàlla dene waqul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim kuni bardan wa salaaman su ne woon bardan sax rek du baax ci ibrahim mais mu ne ko wa salaaman mbokk yi juróom-ñaareel mooy anna saahibul xaq laa yaxsha an yuwaajiha ahad li anna allaha sayansiruhu wa yusabbituhu ولقد رأينا كيف وقف إبراهيم عليه السلام أمام هذا الحاكم الظالم النمرود ابن كنعان ونازريه وانتصر عليه بفضل الله جل وعلا بقي gis nañ ne képp ku jàpp ci dëgg bu mu ragal am contact ak bandi ku jàpp ci dëgg bul ragal ñu woola commissariat bu ragal ñu woola dig bu ragal ñu yóbbu la rëbës feeg yaa ngi ci dëgg anna saahibul xaq laa yaxsha an yuwaajiha ahad ku jàpp ci dëgg waroo ragal mbëkkante ak keneen lu tax ndax yow ki nga àndal moo ëpp doole ñépp te mooy yàlla ndax yàlla moom moo ne dinaa la dimbali te dinaa la saxal kon war a ragal kenn moo tax sahabatul kiram kenn mënul woon taxaw seen kanam lu tax ndax dañoo yëgoon ne nit ki koo mënta àndal ñoom ki ñu àndal moo la ëpp doole wala yaa ngi taxaw ci kanamu julli lan ngay wax boo taxawee ci kanamu julli looy wax allahu loolu mooy lan mooy yàlla moo màgg ku ngand ku ne yàlla moo la gën a ngand allahu akbar yow yàlla yaa gën a màgg ñëpp ngay tiit keneen est-ce que kon sa allahu akbar bi dëggu na ah ngay ragal leneen yàlla lan la loolu wax fala taxshawhum wax saw nii fala taxaafuhum wa xaafuu nii xoola lu mu ci teg sax in kuntum muminin moo tax saxaaba yi ragal lu ñu woon kenn keroog ba gaa yi leen ne tey ngeen dee gaa yaa ngi dajaloo inna naasa qad jamau lakum faxsawhum lan lañ wax qaalu xasbuna allah wa nicma alwakil yàlla bi mu yónnee firawna Muusa ci firawna da ko ne inni maakuma asma'u wa ara demal maa ngi dégg di gis demal ma nit day am yaqiin Muusa bi mu ñëwee ba jib géej gi jël yat bi dóor ñi amul yaqiin ñi amul imaan naan innaa la mudrakuun way tey ñu dee innaa la mudrakuun ñun tey ñu dee yow firawna Muusa di ñu rey bu firawna ngi nii di ñëw suñu demee mu rey ñu fii bu ñu fi duggee dañuy lab xam nga moom dafa am yaqin dafa am imaan dafa jàpp ci yàlla lan la wax kalla inna ma'i rabbi maa ngi ànd ak sama borom inna ma'i ma'i rabbi maa ngi ànd ak sama borom yonte yàlla Muhammad loolu la waxoon Aboubacar ba mu tiitee ah lan la waxoon keroog bu Aboubacar tiitee ci biir xuntu mi yàlla ne allah tansuruhu faqad nasarahu llah is axrajahu allazina kafaru saanis nayni is huma fi lgaar is yaqulu li saahibi la tahzan inna allaha maana bul tiit abubakar tiit ne ko yëfir yaa ngi nii yonent bi ne ko inna allaha maana yàlla moo ngi ànd ak ñun ko ànd ak yàlla looy tiit lu tax julli di di di tiit tey lu tax julli di di tiit lan la ñuy tiit lu tax duñu ragal yàlla kese lu tax duñu tiit yàlla tax ñu ragal leneen bi ñu ragalee lu dul yàlla la ñu yàlla toroxal ba fii ñu toog comme dañoo ragal ku dul yàlla dañoo ragal Amérique ragal Israël ragal ragal ragal ragal ragal ay buxaaba ragal ay kenn xamut moo tax luñ ci gis torox rek jullit du ragal ku dul yàlla doo tiit ku dul yàlla ndax koo yaakaar yàlla la yaakaar kon yow yaakaaral yàlla mbokk yi juróom-ñetteel anna man yajalu anna allaha yajalu hilaaka aljabbarin almutakabbirin bi aysaril asbaab gis ngeen yàlla képp kuy ngand ngand lu fii di jaay doole yàlla bu lay toroxal lu ndaw la lay booleel te yéen suñ leen di ne tey loolu sax jarutul ñuy indi histoire ay at yu yàgg ci ay borom xam-xam ci ay bandi déedéet ana Ariel Sharon arrière charon anamu ñaata ñaata at la sukuraat kenn xamul ndax dee na wala est ce que deewul ñu suul ko di ko nëbb est ce que normal na ba heure bii muy sukuraat l'essentiel que tolloon na ci jamono bëgg a dee mënul dee gis ngeen yàlla mboolem buur yi ngeen gis fii di buur buurlu ku ci bëgg a dee da ngay dem bëgg a dee doo dee ñoom ñépp nag yàlla lu ndaw la leen di teg lu tuuti ci seen yaram duñ ci mun tus namrut ba mu dee ba muy jaay yàlla affaire yàlla lan la ko booleel yoo xool li gën a tuuti ci mbindeefu yàlla yi yàlla boole kook moom moo tax jullit war a xam ne yàlla mooy borom kàttan wala koo xam ne yoo yoo moo ko rey an allaha yajalu hilaakal jabbaariin alkande band yi bi aysaril asbaab lu gën a tuuti ci gën a yambare ci mbindeef yàlla yi la la yàlla di boole wala qad raayna gis nañ kayfa jaala allahu hilaakan namruud bun kanaan gis nañ alkande namruud allazi kaana yazamu annahu ilah min dunillah moom demoon na ba ne maa yàlla ala ko yàlla booleel yoo Moussa ba mu ne Firawna ba mu ne maa yàlla lu ko yàlla booleel géej yàlla naq ko ci ndoxum xorom mu lab ba léegi su ngeen demee Égypte ñu wan leen yaramam Égypte sax daa sori boo demee internet ci portable yi léegi ñu wan la ko mu ne tëdd lacc ya- yàlla ne ko xamoon nga ne doo yàlla yor nga ko kenn ngi ni toog yor na ko mu ngi noonu gis nga li ko yàlla waxoon moo am yàlla waxoon na ko dinaa musal sa yaram bi ba ñëpp dinañ la tiim xam ne doo yàlla da ngay fen lu tax ñuy ragal lu dul yàlla lu tax ñuy tiit lu dul yàlla lu tax duñ dénk suñu bopp yàlla te ñi dénkoon seen bopp yàlla yëpp rëcc nañ raw nañ egg nañ fa ñu bëggoon yegg képp koo xam ne gëmul yàlla yàlla bu lay alak lu ndaw lay booleeg yow lu tuuti lu ndaw kenn du ko mën a dindi léeg yàlla teg la benn feebar ñu indi ay médecin indi lépp ñu ñëw xool ba sonn dara da ngay dégg rek ñu ne bàyyi leen ko nii kii moom pare na ci àdduna bi ñu tiim di la xool kenn mënu ci tus te pourtant indi nañ lépp laaj leen chab bu Iran bi mu feebaree ay ay docteuru américain lañ indi ñu indi ko ñeenti appareil appareil buy génne deret bu dee appareil buy dugal deret bu bees appareil buy indi oxygène appareil bu koy sol ndox ah hôpital bi mu nekkoon géej gi sous-marin yi ñoo fa nekkoon di ko garder ci kaw armée de l'air ci suuf armée de terre yàlla yónni malaaka bi ne ñëw rey ko ban armée moo ko téye gis ki mu ne arsalal maliku malakan li yaxuza ruuhul malik mu ne famanil malik hmm? allahu akbar léegi lu tax malaaka bi mu ñëwee armée yooyu jàppuñu malaaka bi yàlla mooy yàlla dañu xam ne yàlla mooy yàlla bu loolu leeree ci ñun rek ñu noppalu gis ngeen Namruud da doon bandi bandilu ne mooy yàlla yàlla jël mbindeef yi gën a tuuti ci mbindeefam yi boole koog moom mu dugg ci biir yuur yi du am jàmm xanaa ñu koy pes par jour lu tolloog junni yoon pour mu normal moom nga ku nekk buur ñu ut ay nit yoo xamante ne léegi seen fonction yi pour ñu leen di fay weer bu deelal la pour ñu lay pes ku pes ba sonn dem dem toog fële keneen ñëw te loolu yàlla defu ko ko benn fande ñaata at arbaa mi asana ñeenti téeméeri at ñu koy pes ñeenti téeméeri at loolu day wan ne yàlla mooy yàlla di nga gis fii kilifa yoo xam ne tey comme dañ doon xeex lislaam yàlla boole leen ak feebar bu bon fu ñu toog di saw ñu leen di kuus ñuy tukki rek di changé seen deret gis nga loolu ñu wér pourtant am nañ ay milliards lu tax du ñu wér nekkul foofu ci loxo yàlla la nekk wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu juróom-ñeenteel mooy anna ibrahima alayhi salaam lamma saala allahu aza wa jal an yuriyahu kayfa yuhyi lmawta lam yakun indahu shakkun walakin arada an yantaqila min ilmi lyaqin ila ayni lyaqin fa yara zalika mushahadatun amama aynihi juróom-ñeenteel si ñuy jeexalee ci li ñuy jëlee ci dars bi mooy ibrahima alayhi salaam ba mu laajee yàlla ñaan ko ne ko dama bëgg nga wan ma nooy dekkile ku dee loolu ibrahima amu ci woon sikki sàkk de bu kenn ci ñun ne ibrahima da doon gëmul woon xanaa xanaa ibrahima dafa amoon dut xanaa ibrahima da doon sikki sàkka déedéet walakin araada an yantaqila min ilmil yaqin ila aynil yaqin dafa bëggoon toxu ci xam-xam boo xam ne daf ko yëg mu dem ci aynul yaqin xam-xam boo xam ne daf koo gis ndax ñaari xam-xam yooyu duñu benn xam-xam bi nga gis ak xam-xam bi nga yëg du benn ban moo gën a wóor bi nga gis moo tax boroom xam-xam yi wax naa leen bi ñuy commencé xam-xam ñett lañ ko xaaj bi nga yëg bi nga gis ak bi nga dund may ma wan leen ko ci courant wala ngeen ñëw ci dee ñun ñëpp gëm nañ ne dee am na ah boobu mooy elmal yaqin xam am nga xam-xam ne dee am na aynul yaqin mooy nga gis ku dee nga mu teg nga ci sa bët xaqul yaqin mooy bis boo deewee xam ne nga xam ne yow la dal ba moom leer na léegi wala nga indi ko ci courant mu gën a dal xam nga ne courant day maase mooy elmal yaqin aynul yaqin mooy nga gis ku maas xaqul yaqin mooy bu la nee gër nga tiit ne am mbir mi nekk nii la laa ilaha illa gis nga léegi yow luñ la ci wax waxal nga wax ko ndax boole nga ñett yëpp mbokk incha allah mbokk yi kon ibrahim dafa bëggoon déplacé wu ci elmal yaqin ñëw ci aynul yaqin moo tax mu laaj boroom ne ko yow sama boroom wan ma nooy dekkile ku dee yàlla ne ko ndax gëmoo mu ne ko aha kay walakin li yatma inna qalbi pour sama xel sama xol mën a dal mën a tranquille moo tax gis nga ibrahima bi mu génnee test yi fu mu mujj mooy inna ibrahima kaana umma moom kenn yàlla mu ne nation la ci iman bu ñu boole woon iman waa kaw suuf yépp ci benn place ñu jël iman ibrahima teg ci benn place ibrahima moo gën a gëm adduna bi kon leer na moom kon moom li mu bëggoon am na ko te nag nit foofu la war a toll ci yaqiin nit foofu la war a am toll ci kóolute yonent yëpp dañoo amoon kóolute ci yàlla moo tax bu ñu leen nee nangam seen xel ci yàlla lay dem ñun nag balaa ñu ne yàlla da ngay gis même nit feebar ñu wër wër wër wër hôpitaux yi ba sonn mënuñ ci dara ñu ñëw teg soo nee ana ñu ne yàllaa ci des yàllaa ci des fekk bi yow ba nga nee tëll foo waroon njëkke ci yàlla léegi nag ba nga demee ba mënoon too dara nga ni ah léegi nag nan yaan yàlla même même même ñun ñi jàng ñi sax da ngay gis loolu daf ñuy dal léegi da ngay feebar sa xel au lieu mu njëkk a dem ci nga ñaan nga def dua mocc sa bopp déedéet da ngay dem uti aspirine naan seddul nga ut paracetamol seddul nga ut setamil seddul nga doon ah waaye man si xaw ma jàng ayatul kursi gis nga mujj ko fekk loolu nga waroon njëkk dan yàlla xiir ci boppam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu